bisimila mbokku internet ci dal leen ak jàmm xibaar bu doy waar kawteef ay xale yu góor yu féete ca Sacré Cœur ñoom ñoo jàpp ab sàcc bu jigéen ba noppi yeew ko daanaka di fowe ay cëram teg ci nag daal di koy def ab vidéo dugal ko ci réseau sociaux yi boobu boobule vidéo wër na àdduna ba daanaka jamono jii ni Sénégal yépp ñoo ngi ci waxtaan ñu bari di ko ñaawlu bu ñu sukkandikoo ci journal L'As mi nga xamante ne moom moo siwal xibaar bi ndaw si ñu wax ne da doon sàcc ñu ngi ko jàpp foofule ca yu góor seeni loxo dañu ko yeew ba mu ne ngodd ba noppi di fowe ay cëram bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne Seydou Gassama bu Amnesty jot na ko am ci ñenn ci jege ñaaleeb ndaw si ñu wax ne dafa sàcc mel na ni jamono ji àndut ak xelam yépp daanaka sax moom ndaw soosu ab cadre la ci fonction publique bu Sénégal waaye jamono yi am feebaru xel daf ko dab ba sonal ko lool lu ci mënti am am na ay groupement ki mouvement yu jokkoo takku ngir taxawu ndaw sile waa Jamra association mettital ak fitnaal gu ñuy teg ci kaw jigéen ñi ñu koy duppee dafa doy ñoom ñëpp ñu ngi wër ay xibaaru seet ak seetantal ngir mën a xàmmee ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëf-jëf ji ñu jàpp ne jëf ju ñaaw la li leen tax a mooy xam ndaw si mooy kan ak fan la jógee ba ñu mën koo aar taxawu ko ci jëf ji ko xale yu góor yi def maanaam yeew ko wuññi ormaam foowee ko ba noppi siwal ko ci réew mi yépp jaaree ko ci réseaux sociaux yi ginnaaw si nga xam ne nee ñu dañu ko jàpp muy sàcc Jamra AJS ak Nafa Doy boole nañu takku ngir gunge ak taxawu xale bu jigéen bi ci wàllu yoon waaye itam fexe ba jàppale ko ci feebaru xel mi ñu wax ne moo ko dal ànd ak loolu yëpp pare nañu ngir topp jëf ji ñu ko jëfal yóbbu xale yu góor ya ca kanamu yoon ngir ñu teg leen ay daan fii la ñuy yemandi ak yéen ci xibaar googule dañ ci ñëwaat ak yéen ngir indil leen ci yeneeni leeral daañu leen toppal mbir mi ba lu ci ruus ci xibaar ñu dil siwaat ci ak yéen jërë ngeen jëf. niru na. maire yow kay yaa koy kii romb sigil ma xëccal ma kanam gi ndem ma xool ko waaw xool ma bu baax a baax. yow foo dëkk da ngay jaay bànde yow. foo dëkk yow. waxal ak nit ñi. jarul muy wax kii bandi la. ak jekkaay bi nga jekk dem cagatu sax moo gën sàcc. dem di jaay sa bopp dem jaay sa bopp sax moo gën sàcc yi sàcc la sàcc la fii la doon sàcc gis nga ko ni mu jekkee ah, sàcc bu bon la sàcc bu bon la xoolal ko nii xool ko xool ko xool ko sàcc la xool ko ak ak jekkaayam bi ah. demoon demoon ah, déedéet déedéet déedéet non non pas ça non non non pas de ça non non non pas de ça jigéen jigéen suturaal ko suturaal ko suturaal ko si si net bi laa la jëmee waaw mu ngi nii jàpp ko fii sagar kër ko nii sàcc la jigéen la. sàcc la mi ngi nii. sàcc lay sàcc lay dem. koo àndal. asawar. la.